manifestation bu méttee métti moo nekk di am fecc diwaanu Medina Njaaj be ndaw yi dañoo xëyee tey taal pono fii ci kaw pont Madina Njaaj be ku ne xam ne ni démb fii lañu faate woon euh, Amadou mbay ki di fraudeur bi nga xam ne moom la douane yi arrêté woon mu bañ a taxaw ñu door ko mu faatu loolu nag moo waral tey ndaw ñi jóg fippu di réclamer justice pour Amadou Mbaye bi nga xam ne faat nañ ko ci ay anam yu ñaawa ñaawa ñaawa